kon li fi nekk tey mooy mbégte ak kontaante ci kaw kontaante ak kon nag ñu ngi lay wax bismillah nee na ci sa kanamu rak nee na ci sa kanamu ay mag nee na ci sa kanamu ay mbokk nee na say mbokk nee na say soppe ak say xarit nga fi fekk nee na barki démb ba léegi ay gan ñu nga fii ñëw waaye nag nee na waaye gan wi mel ni yow nee na ñëw nañ fi de waaye nag mën nañu leen a lim mbaa ñu compter leen nee na mën nañ wax dañoo néew. nee na zikrul xaasi. baadal aami. nee na tanbihan li fadlihi. nee na kon nag imaam Thierno Mouhamadul Amin nee na loolu moo nekkoon kaddu yi mu doon dalalee kilifa gi. ma ma maa ngi ñëw moo nekkoon kaddu yi mu doon dalalee gan gi kon nag. te kaddu gaa ngi noonu sëriñ bi marhaban bikum wa ahlan wa sahlan farihna bikum gaayat alfara xata la nakaadu an nadkura kon nag sëriñ bi bismillah Ah, ma ne mbokk yi Serigne bi Serigne Bachir bopp tan Ceerno Serigne Bachir Abdoul Khadir nee na mu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tedd yi fi teew yëpp. nee mu ngi nuyu. mbokk yu tedd yi mu fi fekk yëpp. di ko tàmbalee ci mu baax mi Thierno Alassane Sall. nee na di ko tàmbalee nag ci mbokkam mu baax mi xaritam bii muy Thierno Alassane Sall. ak magam yi ñu fi fekke nee na ak magam yii mu fi fekk te ñu wax si wax ju rafet rafet nee na te magam bi magam yi mu fi fekk te Ceerno Mouhamadul Amin ubbi kaddu gi wax wax ju rafet wax ju taaru wax ju tegu ci yoon yoo xam ne daanaka jërtoon sax mu ci tegaat kaddu ne Ceerno Bachir maanaam Abdoul Qadir nee na sax wax ji ni mu rafetee nee na jarul woon sax mu ciy teg ay kaddu ñu ngi leen di nuyu bu baax nee na kon nag mu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaale ki ñu bokk nee na di leen jaale ki ñu bokk te muy ku baax koo xam ne ñëpp ko seede. nee na muy ku baax koo xamante ne ñëpp a ko seede. bokk ci famille bu baax a baax. nee na bokk ci famille bu baax a baax. di famille diine. nee na famille bi di famille mu diine. di famille l'islam. nee na di famille itam l'islam. moom mi itam. nee na moom mii di Thierno. yàlla dogal ma xam ko ci. keppaaru président Macky Sall. nee na yàlla na mu xam ko ci keppaaru président Macky Sall. waaye ma gis ci moom jikko ju am solo. nee na mu gis ci moom nag jikko ju am solo. mooy xam naa ne doon. nee na moom xam na ni li mu doon. moo ko gënal cere adduna nee na moo ko gënal cërub adduna bii nga xamante ne maam moom la yor. bokk na ci li nga xam ne gis naa ko ci moom. nee na bokk na ci li nga xamante ne gis na ko ci moom. mu di ko doxee. nee na mu mu mu di ko doxee. mooy xam na ni. nee na moom xam na ni. li ko suñu borom àndaaleel. nee na li ko suñu borom àndaaleel. moo ñaale koog moom. nee na moo ñaale koog moom. du tàggoog moom. nee na du tàggoog moom. loolu nag lay doxee. nee na loolu lay doxee. moom lay dundee. nee na moom lay dundee. te ñi ko xam ñëpp itam. nee na ñi ko xam ñëpp itam Eh, am na kàddu yu ñu ko seedeel. nee na am na kàddu yu ñu ko seedeel. yu am solo yu am solo. mooy dëggu. nee na mooy dëggu. te du wax lu mu du def. nee na te du wax itam lu mu dul def. du diggee lu mu narut. nee na lu diggee itam lu mu mënul. kon nag moo tax. nee na kon nag moo tax. bu lu mel ni amee. nee na bu mel nii bu amee. Eh, jaadu na. nee na. te seq koog moom. nee na te ñu seq koog moom. mu am ci man ak cofeel. nee na mu am ci moom ak cofeel. akug jàpp. nee na akug jàpp. ndax bi mu nekkee ci nguur gi. nee na ndax mu nekkee ci nguur gi. génn ci. nee na ci. diggante bi. nee na ci diggante bi. xàmmeewu ma ko bi mu nekkaatee ci nguur gi. nee na xàmmeewu ko bi mu ca génnee ak bi mu nekkaatee ci nguur gi. te loolu mooy li am solo. nee na si man Serigne Bachir Abdoul Qadir nee na loolu mooy li am solo. ndax loolu mooy li fi dul jug. nee loolu mooy jëfu. mooy li fi dul jug. nee na loolu mooy li fi dul jug. ndax nguur moom. nee na ndax moom. lu mu yàgg yàgg rek fu mu yem. nee na lu mu yàgg yàgg yàgg dana am fu mu yem. waaye nag kóllëre. waaye nag kóllëre. jëflante bu rafet. nee na ak jëflante gu rafet. li fii ak yéen a ngi dund ci kaw àdduna. nee na fii ak yéen a ngi dund ci kaw àdduna. yàlla mën na koo saxal. nee na yàlla mën na koo saxal. mooy bu ko dëgglalee. nee na bu ko dëgglalee. ak cofeel. nee na ak cofeel. ak ànd boo xam ne yàlla rek a tax. nee na ak ànd goo xamante ne yàlla rek a tax. kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax. nee na kon nag Thierno maanaam ñu nee na ñu ngi lay ñaanal bu baax. suñu borom. dëgëral mission bi. nee na sunu borom dëgëral mission bi. biñ ko dénk. biñ la dénk. ba fi nga ko bëgg a nee na ba fi nga ko bëgg a yóbbu. yàlla dimbali yàlla dimbali la. ba nga àggale ko ba nga yeggale ko fa. kii nga xam ne moo fi bàyyeekoo itam. nee na kii nga xamante ne moo fi bàyyeekoo. suñu borom dolli ay leeram. nee na sunu borom dolli ay leeram. te yàggaleen yéen itam. nee na te yàggale yéen itam. yéen ngi di njabootam. yéen ñi nga xamante ne yéenay njabootam. ngeen yàgg koo ñaanal. nee na ngeen yàgg koo ñaanal. kon na xam naa ngir tënk. nee na kon na xam xam nañu ngir tënk. ndax boobu ba maa ngi waroon a ñëw far nit ñi teq. ndax nee na maanaam fan yii yëpp maanaam mu ngi bëggoon a ñëw waaye dafa amoon ay tëq tëq tëq moo tax ñawul ba jotaay bi xaw a yàgg. nee na jotaay bi. xaw a yàgg. xaw a yàgg. kon nag ñu ngi leen nee na kon nag mu ngi ñëpp bu baax. mu war a jëm Touba. nee na mu war a dem Touba. te balaa timis yi nee na mu bëgg balaa timis bee maase. maag. nee na mu yegg. incha allah incha allah. kon ñu ngi yemale foofu. nee na kon nag yemale foofu waxtaan wi. di sant bu baax. nee na mu ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm. di leen gërëm. di gërëm ñi fi teew ñëpp. di gërëm ñi fi teew ñëpp. wasalaamualeykum. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbacke Mbacke Mbacke waaw waaw. cant la rek. Eh, Mbacke di la ziyaare ci bis bi. di ñaan yàlla yàlla nga yàgg taxawee place bii ñu la jox muy place boo xam ni ñëpp yëg ni am nañu yëg-yëg bu toll ni lu kawe njortu nit ñi sax taxawee nga ko noonu ci sa barke maam ñu lay ñaanal tànk yi nga ñëwee ñëwee yal na la ko yàlla fay li ma ciy wax du ñii mënu ñoo waxal seen bopp ñun ñoo leen mën a waxal ndaxte ñun ci kàddu diine la ñuy doxee waaye may wax ni rek naa la nuur la ku xam Thierno Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Sall ku ko xam ak li mu jëfee ci tarixa ak li mu jëfee ci sunna xam nañ ni bu baax a baax ni jëfee na l'islam à cent pour cent fii ci dëkk bi boo nee Ahmed Tidiane Sall ñëpp xam nañ ko yar na njabootam ci diine yar na njabootam ci sunna mooy li nga wax léegi diggante bi nga xamee ni ci la duggee ci gouvernement bi ak bi mu ci génnee kenn xàmmeewu ko ci loolu lañ leen yar du loo xam ni dafay yéemaate ñi nga xamee ni ñun ñoo nekk ci keppaaram nu Mële baayam Abdou Sall fii fii ci cees ñoo fi njëkk a taxawal jumaa di ko doxal mu sanc daara daara jaa ngi nii ñëpp a xam jàkke ji foo toll ci Thiès xam nañu lislaam ñoo ko fi doxal à cent pour loolu dañ la koy wax pour nga xam ni loolu sa maam samp ci Sénégal gii ñëpp di ko xam ba boo demee bitim réew ñëpp xam ne Cheikh Ahmed Bamba liggéeyal na ngir l'islam l'islam ba ka taxoon a jóg mooy liwaawul hamdi bi samp fii ci Thiès kii dafa judd fekk ay baayam di doxal l'islam judd fekk ay maamam di doxal lislaam l'islam sunu waajur nekk fii ci koñ bi ànd ak ñoom seeni baay di liggéeyal lislaam kon bu ñu ñëwee nga ñëw fekk lii dañuy wax dañ leen koy wax dañ la koy wax nga dégg ko pour ñoom ñu xam ni am na fu ñu bokk boo fu ñu bokk foo xam ni wax dëgg yàlla lii nekk ci seen responsabilité ñu koy doxal mbiru àddina la rek waaye la làq ca ginnaaw muy diine moo ëpp doole lépp. moo ëpp doole lépp su ko defee maa ngi ànd ak délégation boo xam ni mu ngi ëmb Abdou Sey ak Mouhamed Sey waa kër El Hadj Ousseynou jiite ñun ñëpp ñu ngi joxe sunu njaal di ñaan yàlla yal na la yàlla bàyyi yal na yàlla jàppale la mission bii ngay dox ci kanamu président de la république xam nañ ko fulle ji fayda ji ji. Mbàkke gi ñun ñëpp ñu ngi koy observé Mbàkke yàlla la fi yàlla bàyyi yàlla yàlla jàppale imam yàlla la fi yàlla bàyyi ci barke Seydina Mouhamed jazakumullah xeyran Sëriñ Mbuub Sëriñ Mbuub xaritam Sëriñ Mbuub waaw euh, mooy bëgg dem la bëggoon ñëw mais bi ma yëgën sëñ bi day ñëw tey mun day xaar ba sëñ bi ñëw mu ànd ak moom hmm. ndax moom day kenn sëñ bi hmm. waaw koro gi koro gi te dëj ba na mu beesee hmm. Ahmed waxoon na ni sëñ bi dina ñëw sëñ bi def na ko mm. ñaan sunu borom guddal fanam wéral ay cëram mbàkke njaboot gi tam li fi nekk cerno yoonu yoonu sëñ tubaab yi fi nekk bu jógee këram gi génn kër sëñ Saliou Touré lay njëkk a taxaw bara door ci kilifa diine yi boo koy wër kër sëñ Saliou Touré lay njëkk a taxaw door a ci kër yi ci des ndax papaam ni mu demee woon ak sëriñ bi kon ñu lay sant nga xam ne sagal nga yoon yi bu baax a baax a baax nga lay sant di ñaan sunu borom guddal sa fan wéral say cër moom nag moom mënta wax li ma ko mën a waxee léegi ay rango ñoom génn na eh, ndax nit moom bu demee ba ay rango ñoom génn dénk nañ la ko daal dénk nañ la ko ma ne mbokk yu baax yi ñu seedeel lañu maanaam seen taxawaay ci dëkk bi rafet mooy sëñ Mouhamed Saloum Dieng mi ak mbokk mi baax mi seen taxawaay ci dëkk bi rafet na sëriñ bi taxawu nañu daara yi jàppale nañu jàngalekatu alquran yi at bu moom mii moo fi organisé maanaam concours alquran bu rëy boo xamante ne ñëpp dañ ciy daje mu teral doomi daara yi teral sëriñu daara yi kon danaa la seedeel li maanaam diine rek ko ñor lim fi nekk alhamdulilahi amul dara lu mu xajamal ci diine ji kon nag sëriñ bi ñu seedeel la loolu ndax bu nekkee suñu mbokk ñu dëkk ak moom nga yegg si fi te waxuñu ko dafay mel ni maanaam dañoo soxor wala dañoo iñaan na na am woon ko bi biir Thierno. Thierno waaw jox ma